risque de trouble à l'ordre public risque de propagation du du du Covid entrave à la liberté de, de à la à la libre circulation des personnes et des biens bi ñu ko gisee mu doon lu reelu mu doon lu ñu bett waaye loolu li ñu ciy wax rek mooy le préfet bi nga xam ni mooy Mortalla Tine dafa am rek lu ñu bëgg wax ak yow tuuti mooy am na koo xam ni moom nga remplacer tey fi nga nekk muy le préfet ba dara li mu fi nekkee woon ñun ñëpp xam nañ ko saa yu ñu mësee bind moo doon bras armé bi bras armé bu état bi envers ñi nga xam ni tey ñooy les sénégalais yi nga xam am nañ lu leen naqari bëgg ko exercer te yoonu réew mi may leen ko saa su ne bu ñëwee mu gàntal ñu ko tey loolu nga commencé di répété mais li ñu leen di wax mooy fi nga jaar sa cursus yëpp yoon wi nga jaar di jàng ba agsi fi nga agsi tey ñu teg la ne la yow yaay préfet de Dakar. nga war a rendre say décision yoo xam ne nii da nga koy rendre au nom du peuple mais mu am ay politique yoo xam ñoo nekk sa ginnaaw di la takkal la ay heure di la wan fan nga war a jaar loolu lu ñaaw la loolu lu lu lu rusloo sénégalais yi la te ñu ngi lay wax nga xoolaat sa bopp ndax danga am njaboot xoolal si sa njaboot àddina amul solo nee nañ président bu fi mës a jaar day dem ni ko français waxee les institutions res les hommes demeurent les les institutions demeurent les hommes passent kon donc xamal ni Macky sàll mii nga xam ne tey moo fi nekk di la defloo ak dindiloo tôt ou tard day dem te yow fii ak demoo ba sa retraite jot doo dem kon honorer la Sénégal bañ a honorer simple président boo xam ni dafiy jóge di politique te li ci gën a ñaaw mooy bi ñu teree manifestation bi la diis li ñu def mooy comme des responsable ay nit ñoo xam ni ñu ñu yar lañ ñu bëgg Sénégal lañ ñu bëggul indi fitna ndax li fi xew mars ñun ñëpp gis nañ ko waxuma la sénégalais yëpp a tiit mais àddina yëpp a tiit mu doon loo xam ni kenn buggatul dellu ci loolu le préfet ñu ñëwaat bind ko pour wax ko ni ko motif yi ñu jox doyuñu ndax ay responsable lañ te bu fekkee trouble à l'ordre public li ngay génnee ci ay takk der bu ñu nekkee di manifester. nga interdire ko li ngay génnee ci ay takk der boo ko buñ ko autorisé doo génnee xaaj bi te dara du damm kenn du débordé dañuy def li ñu war a def wane sunu naqar wax ak journaliste yi ñu ralaate ko mu dem àddina bi yëpp jot ci ñu xam ni lii kat ñu ngi koy naqarlu comme ni ko charte réew mi waxee ñun ñëpp ñu delluwaat sunu kër mais li muy wane rek mooy le président Macky Sall ak gouvernement am bugguñu jàmm. bu réew mi di tàkk maara day taal yi ñoom ñoo koy taal dama naan dañuy faral di wax ni Sénégal am na jàmm man dama naan stabilité la Sénégal am mais jàmm amu fi day des léegi nga génn fii rek ci tali bi romb nit ñi ñuy dox boo leen xoolee rek xam ni ñii amuñu jàmm ndax seen xel sax nekku fi bi ñuy xeex li tax tey ñoo lànk taxaw ba ni day dem dugali demande pour def manifestation bi jiituwul ci tey mu ngi jiitu ci suñu camarades yi ñuy juróom-ñeent bi ñu demee ci pale bi lan lañ doon laaj suñu prix wu courant dafa cher fi may waxee ak yéen ba tey prix courant bi dafa gën a cher boo demee Côte d'Ivoire bii ñu dendal ñoo ñu ëpp employé téeméeri junni yoon masse salariale bi Sénégal am Côte d'Ivoire amu ko muy lu doy waar alal ji ñuy jël ci sénégalais yi dañ koy def ci sénégalais yi de. waaye ci sénégalais à part entière mooy sénégalais yi nga xam ni mooy sénégalais yi nga xam ni dañ leen a jàppee comme benn benn benn clientèle politique ñooñ la ñuy recruter di leen dugal biir Sénélec di yokk seeni mbir pour di am li ñu bëgg ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët Matar Cissé kaawam jaar na fi ak ñeneen ak ñeneen ba ci ki fi nekk nii tey ñu naan bi tey ba fi ñuy waxee ak yéen courant bi wàññeekuwul waaw sénégalais yi fan lañ jëm manifestation bi ci mujj am fii biir camp maa ngi leen koy wax ay nit woo nañ ma ci banlieue bi bëgg ñëw ci manifestation bi paas bu leen indi amul bu kenn ne dañ ñàkk jom dañuy liggéey di fayeeku seen weer waaye dund gi cher Sénégal moo tax duñ ci desal sax lu ñu mën a paase balaa weer wi di dee seen xaalis liñ yor yëpp a jeex ba dañuy wër di toltalaat ban réew lañ nekk pendant ce temps ngay gis ay sénégalais yoo xam ni. ci bourgeoisie bi ñuy dund mel ni ay roi di dund lu leen neex seen doom yi nekk fii ci biir Covid bi di def ay euh, rege paateeg xaw ma nu ñu ko mën a tuddee ba am ñu fa ñàkk seen bakken ñun ñëpp ñu ngi ciy teg suñu bët réew mi bu ñu bëggee jàmm il faut que ñu yamale nit ñi yàlla de bu ko neexee bañ a yamale ndax mooy yàlla waaye nit bu ñu la joxee cër li la war mooy yamale. ndax doo yàlla li tax yàlla yamalewul moo ko xam yow nag xamoo ko kon donc ñu ngi wax ak sénégalais yi di leen wax ni lii kuréel yi toog fii woote tey wooteeluñ ko seen bopp sénégalais yépp lañ ko waxal y compris les journalistes comme ni ko camarade bi waxee ay sénégalais ngeen di ko dund subaak ngoon guddeeg bëccëg te xam nañ ko nag bu wér ndax seen toogaay bi ku ko xool xam ni carrément li ñuy dund di ko yëg yéen a ngi koy yëg te camarade daa fàttali lu am solo tey mooy bu ñuy marche dëgg la sax yéen di ngeen bokk ngeen ci ñi yokk masse bi ñu ngi leen ciy félicité ndax seen liggéey ngeen def waaye yéen a ngi yokk masse bi waaye bërki démboo Njaay dañ jàpp seen benn camarade dóor ko ñan ñoo ko def la police ci waa LCIS yi mbir mu ñàkk xorom ñu ne dañuy manifester ñu fekk leen fa ba dóor fa benn journaliste gaañ ko dem naa ba seeti ko ci hôpital bi mu nekkoon fii muy lu ñaaw jigéen kan moo ko def la police état du senegal day jël alalu réew mi pasar pasaree ko ba pare jël polis bi xëpp ko ci kaw ñiy bañ loolu nag dafa war a dakk ndax senegal du royaume Macky sàll du Staline Macky Sall du du buur moomul réew mi te loolu faw mu xam ko sénégalais yi li ñu leen di wax tooguñu fi di jaay fit wu rëy waaye nag boo nekkee ci dëgg. doo ragal da ngay ñeme moo waral sunu kàddu yi li ñu fi waxoon démb ak bërki démb lañ leen di waxaat tey dañ na woon avec ou sans dañuy manifester parce que loi réew mi moo ñu ko moo moo moo ñu ko may manifestation nga am lu la naqari ci réew mi di ko def suñ charte réew mi moo ñu ko digal te ñaar rek a mën a tax préfet bañ ko autoriser comme ni ñu ko waxee trouble à l'ordre public manque d'effectif maanaam takk der yu matul ak ñu euh, trouble à l'ordre public ngeen dimbali ma ci xëy na ñaar yooyu rek mooy mën a tax du ko autoriser waaye préfet bi deful loolu moom day politique sunu camarades yi nga xam ñooy camarade de frappe yi nekk Tiwaawan ñoom it en même temps dugaloon nañ pour àjjuma bi ndax li ñu mëbatoon mooy manifestation partout dans les 46 départements du Sénégal xëy na comme charte yi ni mu ko waxee booy dugal demande dafa am ay bis yu ñu lay laaj loolu xëy na xaw a tardé moo tax les camarades de frappe de Tivaouane ñoom ñoo jotoon dugal waaye ñoom tey li ci reetaan lu mooy fii tey préfet bi notification bi mu ñu jox dafa dindi risque de propagation du Covid waaye la xew Tivaouane préfet boo foofu moom la mu wax mooy risque de propagation du Covid moo tax autoriser wu leen waa loolu lan lay niru yàpp sénégalais yi li ñuy wax nag mooy dund gu seer sénégalais yëpp a koy yëg muy mécanicien bi muy commerçant bi muy journaliste bi muy politicien bi nga bokk APR nga bokk PDS nga bokk PASTEF nga bokk foo mën a bokk ci parti politique yi ci Sénégal syndicat boo mën a bokk sénégalais nga da nga koy yëg te sa payoor bariwul li sénégalais yi di am lu néew la buñ ñu yërëmul buñ ko tibb. fii ci biir corona bi lañ gis ñu dajale fi suñuy milliards yu bari jox leen ko ñu pasar pasaree ko ci fii ci biir corona bi lañu gis ñu bind benn décret honoraria jox ko ay ancien président conseil économique et social environnemental yooyu yëpp ñu koy gis ci réew mi paccoo bu doy waar ci biir réew mi ñëpp di ci teg seen bët loolu nag dafa ñaaw ku xamul suur naa dañuy téye sa loxo moo tax collectif ñoo lànk bi ñuy eh, mébét lii. li ñu njëkk indi mooy fayu jot na fayu jot na li muy tekki mooy ay élection lañu jëm yàggul te démocratie élégance su démocratie sax mooy bu fekkee am nga lu la naqari état teg la ko nga war ko manifester mais boo bindee ñu jox la nga manifester dem sa kër loolu mooy élégance su démocratie te moo koy doxal mais ñi fi nekk. kenn xamul yan façon nit lañ ak lan lañ bëgg te ñiñ ko séqal du ñu bàyyi duñu daw duñu dellu ginnaaw ay bàyyi faalu Sénégal lañ duñu dellu ginnaaw mukk nangeen ko xam le préfet ñu ngi lay mettre en garde ne la fi nga teg fi nga toog nii tey Macky sàll tegu la fa bi la say waajur di jàpp ci loxo di la yóbbu ngay jàngi école Macky sàll xamoo ko xamu la yàllaa la dooleel ba nga agsi fii tey lépp lu ngeen di jëlati comme décision war ngeen ci xool seen borom ndax bis bu ci mbir amee tey bu ñu wàccee ni dañuy manifester par am ku ci ñàkk bakkanam na nga xam ni am nga ci responsabilité bu rëy te du la wàcc yow ak ñi la ko sant ñu ngi jël en témoin l'opinion national international ñi dëkk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew ñépp di leen wax ni sénégalais yi dañoo sonn te li ñuy def defaluñ ko seen bopp li ñuy def nii defaluñ ko suñu bopp defaluñ ko sénégalais yi Sénégal ci boppam lañ koy defal ndax Sénégal li fi xew dafa ëpp te war nañ ko arrêté. préfet le 10 bi mu ñu bi mu ñu bi mu ñu gàntalee sunu manifestation dafa autorisé ci même instant bi beneen manifestation boo xam ni dañoo dem ci Mermoz Sacré-Cœur bu Barthélemy Diaz di fa manifester ngir ànduñu ci ni Barthélemy Diaz yoree mairie bi léegi moom mu gantal ñu autorisé loolu. loolu lu muy tekki risque de propagation nawetaan yi ñu ngi dox ni mu waree mel ni mosul fay pendant ce temps les lutteurs ñu ne leen du ngeen bëre waaye yéen dañ leen àtte nag dëgg bi bi Covid bi duggee sénégalais yëpp a tëdd seen kër kenn génnatul ñëpp ànd ci décision yi man fu ma huit heures fu ma sept fekk balaa huit dinaa daw dugg sama biir kër. daw ma ngir police de waaye damaa daw ngir respecter les mesures yi ñu jël ndax àddina yëpp tiitoon nañ waaye fi ñu toll nii ñëpp xam nañ ni moom sax moo ni il faut apprendre à vivre avec le virus kon donc lan la ñuy daw bay daanu li ñuy wax sénégalais yi daal mooy ñun woote nañ te duñ ci dellu ginnaaw sénégalais yi bu fekkee ni liñ tibb seen poos yéen a koy yëg yéen ñëpp woo nañ leen place de l'obélisque suba na ñëpp wàcc ndax wàcc bi lan lay jëriñ mooy dina tax préfet bii. décision yi muy jël te tegu ko fenn dina ko xoolaat ndax am na loo xam kenn du ko bàyyi noonu mënoo fi nekk pour garantir la loi ba pare di ko jalgati il faut que tam ñu respecter ñu tuuti lii du jàll te duñ ko bàyyi mu jàll li ñuy def daal mooy woote nañ ñu ngi xaar les sénégalais demain incha allah heure bi ñu leen joxoon place de la nation ba RTS di wax laa police sénégalaise jël leen seen responsabilité. ay salaire yu ndaw ngeen am ñu leen di sonal guddeeg bëccëg suba ak ngoon il paraît que dimanche passé kenn fayu leen bu leen ñu ko sippi seen digganteeg ñi leen fa teg la pendant ce temps alal ji ñu leen war a jox ñu ngi ko jël di ko fowee ngeen teg ci seen bët jël leen seen responsabilité réew mi bu fekkee nag dañuy toog képp ku mbir mi boo nekkee administration rek jàpp ni sama sama place laay sauvegarder ba lu luñ ma sant ma def ko laa du jëmee Sénégal fu baax Sénégal dëkk bu ñu war a honorer la dëkk bu ñu war a jàppale la mu jóge fi mu nekk ndax ay nit ñu am xel a fi nekk dëkk ko ay kilifa yu baax a fi nekk ay boroomi xam-xam ñu ñu naw ci àddina bi kon donc lu am ci yeneen réew yi war na mën a am Sénégal mais mal gouvernance moo ñu indi fii kon donc les fonctionnaires jël leen seen responsabilité li xew ci réew mi yépp ñu ciy takkal ay nit de gauche à droite c'est vous les fonctionnaires bu ngeen defoon seen liggéey du agsi fii administration bi moo deful liggéeyam bu leen ko sippi le peuple peuple Sénégal sonn nañ coono gi yàgg na te dafa war a dàkk wax ji nag du gudd li may def rek mooy maa ngi ah voilà comme niñ ko defee woon laa fois passée parce que tam am na loo xam bu teguwul ci yoon rek teguwul ci yoon préfet bi bi mu ñu joxee notification bi dañoo gis ni man sax ci biir bureau commissaire laa ni ko lii duma ko signé fii laa koy bàyyi dem ne gars yi dañuy manifester parce que tegu ko fenn waaye nag boo àndeek ay nit day baax nga leen di déglu ñu waxtaan trouver consensus ci lañ jëlee décision keroog jël arrêté bi xotti ko loolu la ñuy defaat tey ndax lii amul njariñ yàpp nit ñi la préfet de Dakar liñ lay laaj dafa yomb bu ñu bindatee autorisé ñu ñu marché ñibbi suñu kër Macky Sall moomul réew mi alal ji ñuy yàq sénégalais yee ko moom te sénégalais yi duñu noppi maa ngi leen di gërëm. waaw man Fallou Diagne la bokk ci collectif ñoo lànk waaw di wax ni rek comme ni ko camarade bi waxee ñii ñëpp dañu impacté ñu ngi woo suñu mbokk tailleurs yi les mécaniciens maçons yi les lutteurs même les policiers seen bopp ñu ngi leen di woo yéen a gën a sonn ñëpp. préfet ci boppam yow sa bopp ñu ngi lay woo di woo sa njaboot ndax man ci njabootu waa préfet laa li may wax boo ko déggee di nga ko xam te maa ngi ci maa ngi ci terrain bi di woo la ak ñëpp rek les commerçants sama mbokk commerçants yi maa ngi leen di woo parce que mbir mi ku toog naan du agsi si man ci sa kaw la jëm Sénégal nañ bàyyi bu mbir amee ku nekk toog naan du agsi si man liy ràng ci ñag bi la jëm te mu ngi atteindre nit ñi benn par benn bàyyiwul kenn les de famille nag yéen a ko gën a yëg mais même même même seen njaboot yi parce que école bu tijjee dund gi yokk mais seen goûter yi day wàññeeku bu la papa doon jox nga mën a am sandwich bu baax bu bëccëgee nga lekk sa crème wala naan sa meew mais boo moytul benn ngay am jug leen xeex ñu séddoo alalu réew mi ku nekk mos jàmm na ñooy. Je vous bon, s'il y a des questions-réponses, ah, il